Mark saar ñett. bi yéesu di jóge ca kër yàlla ga kenn ca taalibe ya ne ko kilifa gi xoolal ni mu réye ay doj te rafete ni ay taax waaye yeesu tontu leen du gis ngeen taax yu réy yii yépp lii lépp dina daanu ba doj dootul des ci kaw doj ginnaaw loolu bi nga xamee ni yeesu toog na ci tundu olivier jàkkaarloo kër yàlla ga piyeer saak yowaan ak andre fekk ko ci wet laaj ko wax nu kañ la loolu di am te luy tegtal ne mbir yi yépp a ngi bëgg a mat noonu yeesu tontu leen moytu leen bu leen kenn nax ñu bari dinañu ñëw ci sama tuur naan moom laa te dinañu nax ñu bari bu ngeen déggee ay xare ak coowi xare watuleena tiit loolu war naa am waaye mujjug jamono ji jotagul xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew xeex ak meneen réew te yëngu-yënguy suuf dina am ci barab yu bari ak ay xiif loolu lépp mooy ndorteel metit yi mel ni jigéen juy matu moytu leen des na leen jébbal àttekat ya di leen dóor ay yar ca jàngu ya dinañu leen dëj ci kanamu ay boroom réew ak ay buur ndax sama tur ngir ngeen nekk seede ci ñoom faw xabaar bu baax bi jëkk a jib ci xeet yépp saa su ñu leen jàppee nag dëj leen ci pencum layoo bu leen jàq ci li ngeen war a wax li ngeen jot ca waxtu woowa wax leen ko ndaxte du yéenay wax waaye xel mu sell mi mag dina joxe rakkam cig dee baay joxe doomam ay doom it dinañu jóg di bañ seeni waajur di leen reylu te ñépp dinañu leen bañ ndax sama tur waaye ku muñ ba ca mujj ga mucc bés baa ngi ñëw bu li ñuy wax lu araam luy yàqe tege ci berab bu mu yelloowul kiy jàng na xam bu ngeen gisee loolu nag ku nekk ci biir diwaanu yude nanga daw ca tund ya ku nekk ci kaw taax mi bul wàcc ngir dugg ci kër gi fab sa yëf ya fa nekk ku nekk ci tool bi bul ñibbi ngir fab sa mbubb nga la jigéen ñi ëmb ca bés yooya nga la it ñiy nàmpal ñaan leen ngir seen gàddaay bañ a tase ak jamonoy seddaayu lool li ndaxte booba dina am mitit wu rëy wu musula am ba àddina sosoo ak tey te dootul am mukk te bu fekkul woon borom bi wàññi bés yooyu kenn du mucc waaye fekk na mu wàññi leen ndax gaayam ñi mu tànn nag bu kenn waxee kaay leen gis kirist a ngi fii mbaa leen mu nga fale bu leen ko gëm ndaxte ñi mbubboo turu kirist ak ñi mbubboo turu yonent dinañu feeñ di joxe ay firnde yu rëy ak ay kéemaan ba ci nax sax ñi yàlla tànn su loolu mënoon a am wax naa leen ko lu jiitu kon nag moytu leen waaye booba ginnaaw mitit yooyu jant bi dina lëndëm te weer dootul leer biddiw yi di daanoo asamaan te kàttani asamaan yi yëngu noonu des na gis doomu nit ki ñëw ci niir yi ànd ak kàttan ak ndam lu réy dina yónni ay malaakaam ñu dajale ñi mu tànn ci ñeenti xeble yi fa àddina dale ba fa asamaan yem yéesu teg ca ne jàng leen misaalu garabu figg ga boo xamee ni ay banqaasam duy nañu tey xawam sëq xam ngeen ni nawet jege na noonu itam bu ngeen gisee loolu lépp xew xam leen ni jege na mu ngi ci bunt bi sax ci dëgg maa ngi leen koy wax nit yi jamono ji duñu wey te loolu lépp amul asamaan ak suuf dinañu wéy waaye samay wax du wéy mukk waaye bés boobu ak waxtu woowu kenn xamul kañ lay doon du malaaka yi ci kaw du sax doom ji waaye baay bi rekk moo ko xam moytu leen te xool xamuleen kañ la waxtu wi di jot mu ngi mel ni nit ku tukki mu dénk këram ay surgaam ku nekk ak sa sas te sant bëkk néeg bi mu xool yéen nag xool leen ndaxte xamuleen kañ la boroom kër gi di dellusi muy ci timis mbaa ci xaaju guddi muy ci fajar mbaa njël bu ne jaleñ bu mu leen bett ngeen di nelaw li ma leen wax ñépp laa ko wax xool leen